man maa ngi tudd François bëgg a yokk sama bopp am ba am maanaam lu rëy ndaxte ñi may seet yàlla dafa def ci ñoom loo xam ne loo xam ne boo ko xoolee di ko xam ci ñoom te saa yoo toogee di nga xam ne ñii suñu nitu ay nitu suñu borom lan te yaakaar naa ne suñu boromam lépp li nga xam ne maanaam da koo sàkk jiital ci doomu aadama kon yaakaar naa war waruñu see woyofal lenn moo waral nag ma dox ay tànk ñëw seet si ñu sell ñooñu. non c'est pas la première fois ma ñëw mun naa wax ne ay at maa ngi fi ñëw. maa ngi doon li ma doon sama religion maa ngi ko conserver nekk katolik te doon bi ma ko doon aussi yàqalu ma dara ci ñëw bu may ñëw ci ñoom ndaxte mosuñu ma xoolee bët boo xam ne bëtu lii nga doon nii te cee jóge nga doon lii mosuñu ma ko wax ba li ma ci gën a neex ki tax ma fiy ñëw te ñëpp bëgg ko mu ne woon ne may Sénégal muy Serigne Fallou amul chrétien amul tijaan amul laayeen ñëpp ñoo ko bëgg te bëgg yàlla moo koy def ci xol yàlla moo ma booleeg moom ma bëgg ko sama biir xol te boole boobu noonu nekkul man maa ko wut si moom moo ma wut si wut si bi mooy dama ko gént bi ma ko géntee yemul ci benn yemul ci ñaar à la fin nag ci laa am connaissance ak fameem ba tase seeg ab leeram ku ñuy wax sëriñ Mourtala Falilu muy ku baax ma ñëw di ko seeti xamal ko li waral samay tànk ci moom mu jàpp ma téye ma bëgg ma lool fonk ma waaye ci mbaax ak yërmandeem ak xam doomu aadama ak xam ci li ma nekk ci li ma jóge leer na ko ne ñëw bi may ñëw ci moom su may parent mun nañ inquiété wu ndax seen doom fu muy dem mbaa du fa changé xam nañ ne fu baax laa jëm waaye pour confirmer leen ne seen doom doxul tànk caaxaan te fu muy dem du fa changé dafa taal otoom jóge Touba fekk si ma ba fi ma dëkk muy Joal Fadiouth mu jaaxal ñu bëri naka la maara bu toll nii mun a quitté fi mu jóge seet ab katolik mu def leen kaa waaye pour wanal ne ñooñu seen esprit fu ñu nekk weesu na diw katolik la wala kii ndaxte ki seen ki ñuy roy moo leen newoon ne woo naa ñëpp te ñaan naa yàlla yërëm ñëpp muy sëriñ Touba bon sëñ Fallou ba laataa ma ko gént alaaji baara laa njëkk a gént mu doon loo xam ne yàgg na bi ma ko géntee ma am ci ku ma ci waxtaanal mu ne ma fexee la jéem a dem foofu boobu yàlla def na mu ngi dund waaye eh, ñu dem ay diir boobu maa ngi nekk sama famille mais xaw moon naka lay def pour waxtaan ak ñoo ne leen damaa bëgg a dem Touba jusqu'à la fin Alaaji Baara noppalu bu noppaloo dama ko gént romb ci mbedd nit ma ab Baay Faal ne ma kaay wuyu ma ñëw mu dugal ma ci saal bu rafet bu yànj ma toog même pas deux minutes mu dugg si moom Alaaji Baara sol grand boobu bi mu dugg see ñëw toog ma jóg nuyu ko bi ñu nuyontee ma toog ci suuf mu ne ma jógal nga toog ci kaw fauteuil bi ma bañ mu ne ma jógal ba trois fois quatrième fois bi dafa ma ne boo jógul toog ci kaw fauteuil bi du wax ak yow après ci laa jóg toog ci kaw mu laaj ma loo bëgg laa ma expliqué ko li ma bëgg mu ne ma tàllalal loxo yi ma ñaanal la ci laa tàllal samay loxo mu ñaanal ma foofu la gént bi yem bu dee ci sëñ fàllu dama nekk université ñibbisi fi ma dëkk Joal Fadiouth bi ma ñëwee yàlla def benn guddi ma gént romb ko mu toog ci piliyaan bi mu toogee ci piliyaan ma romb ko ñu woo ma ma ñëw nuyu ko bi ma ko nuyu ba pare mu yëkkati jaaro ak jox ma ko bi ma joxee jaaro bi ci biir gént bi amoon na beneen jaaro bu nekkoon sama mais jaaro boobu dafa réer ci gént bi bi ma yeewoo ma am ku ma woo koo xam ne jege na leen ma wax ko mu ne ma fexeel nga ñëw fi bi ma demee nag jour boobu laay soog a gis sëñ Mourtala mu sëñ Fallou bi ma ko expliqué gént bi ci saa si la génne jaaro bi jox ma ko moo tax ci laa ko téye boobu léegi mu nekk jaaro bi bon euh, fàggu maanaam dafa ma woo rek parce que bo man bokk naa fi may bokk ba pare muy taalibe Yeesu Krista la gént yooyu noonu lu waroon am la rek boole bu ñu sunu borom boole la rek ak cofeel bi nga xam ne dama ko am ci moom te muy dëgg ci man moom mu delloo ma ko wan ma ne lii li nga li nga li nga ma woo ni man fekk si naa la si waaw xam nga cofeel dafa foor mbëggeel dafa foor ba tax na yooyu bu duggee si doomu aadama rek yàlla moo ko sàkk boole kook moom yooyu bu duggee rek mun na manifester woo nu nekk te tey jii man sama exemple yaakaar naa ne kuy mag wala ngay xale wala nga xam boo xoolee Senghor nga xam ne kon affaire yi maanaam lépp dëgg la te sëñ Fallou lu tax man gën ko naw sax gën ko bëgg gën ko fonk ni nim ñu def la ñun ñun catholique yi ñun chrétiens yi nim ñu def sëñ Fallou moo tax du ko weccoog dara dama gisoon ni mu téye woon sengoor ba muy metti Senghor lam daan wut ñu bëri yaakaaroon nañ ne ab catholique mënu ko mun a téye yaakaaroon nañ ab catholique warul woon mun a téye nguuru senegal bi jiite ay ay ay musulman Sëñ Fallou ne leen du foofu ne la wan leen ne Serigne Touba te Serigne Touba ku ma ko jàppaleel ma jàppaleel noonu la fale sengoor am ñu ciy critiquer mu gën koo téye rek ba keroog Senghor doyal te gis nga li xew bi Senghor noppale nopp noppalu ko sëñ Fallou fay na ko alaaji baara ñëw na teew fa te buñ demee ci cimetière yi alaaji baara dugg na ba ci biir cimetière yi la la labe yi daan def alaaji baara def na ko kon nga xam ne àdduna daal rafetal rek mu am solo waaw mun naa wax ne dialogue islaamu chrétien la wut si ma dugg si yoon bi ndaxte man li ma gëm xam naa lan la muy Christa bi wóolu naa koy tamit xam naa li ma wax ak li ma dénk tey ak ëllëg ni la sa sëriñ dénkee mu la dénk te ëllëg boo ci toppee lan la dig man Christa bi li ma digg am naa ci lu ma wër ne su ma ko toppee dinaa ko am muy kërub aljana ya ak te du aljana kese ak yeneen yu baax yi fii ak fële loolu fii la sunu borom moo moo moo moo moo moo moo mélangé daal moo jaarale nii kenn ku ci nekk nag ak sa yoon doo ko mooy mukk waaye xam naa ne daal dialogue islaamu chrétien bi waaw bugg naa ci maanaam marke tey nit dangay ngay bëgg lu baax tey kon nag boo bëggee lu baax dama seetu ñu baax ñi di fépp laay dugg fépp fu baax waaw. fi ma ko séntu loolu wax naa ko sëñ Fallou ba pare te dina ma ko fa yóbbul incha allah te xam naa ne fu kawee rek lay doon fu romb sax diggante ak Senghor waaw loolu lu ma lu loolu lu may. saa daf ma wóor ne sëñ Fallou jógu fi yaa ngi dégg te lam daan def. ba nit ñi toppoon ko naan ko borom naam mu am borom kun fayakun lu mu ñaan suñu borom may ko buy kafee dara sax suñu borom def ko ndax maanaam dëggu bu mu dëggu pour wane ne tey jii nii nag li ma koy ñaan ak la mu defoon njabootam yi fi nekk nii mën nañ ma defal lool te dinañ ma ko defal. sama digganteeg sëñ Abdou Karim lu ma marqué la sama dund te dootul dañ ba abadan ndax sëñ Mourtala marqué na ma ndax marqué bi ma marqué mooy at at at bu nekk rek mu déplacé wu ñëw fekk si ma fi ma dëkk. waaye sëñ Abdou Karim li ma gën a marqué sama diggante ma ak moom dafa nekk koo xam ne yàlla suñu borom da ko baaxal ba pare muy borom makaarimal axlaa mu làmboo lépp lu baax ba nga xam ne am na ñu koy tagg sax ba naan ko bu la neexee sa dàll nga sol ko këru diine bu la neex dugal ndax sa jikko yu rafet yàlla def benn jour ma ñëwoon ziar si ko nuyu si ko bi ma ko nuyoo mu woo mu ñëw mu ne ma jëlal nga paas ci lii ma ne ko ma bañ mu ne ma déedéet yow da ngay jàng te dañ leen a war a dimbale yéen ñuy jàng ma nangu li ma jël waaye li mu ma jël bi ma ko nangoo bugguma ko lekk ma dem église bi ma jógee eglise ma génn dajeeg kuy jaay chapelet ma jënd fa chapelet bu bees tak ma bàyyi ba génn église ma woo ko téléphone mu décroché ma ne ko Mbàkke Bàll la maa ngi nii di soog a génn église bi ñaanal naa la bu baax yoog njaboot sëñ Fallou bi yëpp ak sa mag ñu baax affaire bi def ko kaa ba journée boobu noonu képp ku fa ñëw dalaa na man daal benn xale catholique moom ma woo nan ma daal maa ngi nii doog a génn église bi ñaanal na te loolu dama koy def ma saa yu ma demee église des fois ma woo ko su ma ko des ma jot ko des ko jot waaye li ci bëri dama koy jot yàlla ko dëgg léegi nag bi loolu amee ba ma ñëw ci moom mu rappelé ma ma génn chapelet bi ma ne ko lii xaalis ba nga ma joxoon ci laa jënd chapelet bi ba boo xoolee boo duggee ci internet bi sax màggal la woon en direct seen TV jëloon nañ ko boobu sëñ jaay yi ndem si yàlla bi yàlla na ko yàlla yërëm moo ci doon débattre di ci expliquer mu laaj ma chapelet bi ma yëkkati chapelet bi jox ko mu téye chapelet bi téye croix bi ne ma lii noo ciy ñaanee ak yow boo ma ciy ñaanal nan nga ma ciy ñaanalee xam nga ku baax ba pare làmboo lu baax da ngay neex a ñaanal nga nekk ci yàlla ak fu sori ma expliqué ko ne ko chapelet bi bu may tàmbalee ñaan lii lay ñaan mu ne ma looy ñaan ma expliqué ko lépp mu bëgg kontaan ba loolu tamit mu retenir ko ba ku ñëw rek mu mu yëkkati wax la ko waaw ba pare maanaam fonk na ma lool daal te man li ma gën a neex ci ñoom daal waaw li ma doon daal dañ ma cee dañ ma cee gën a puus daal ci may gën a gëm sax mun naa wax ci may gën a gëm li ma doon ndax dañ may soññ samay parents mënuñoo tiit parce que maanaam xam nañ bu baax sama ngëm-ngëm ñoom seen ngëm-ngëm xam naa ko te ci laay wëy ba keroog yàlla di def di ma moom waaye li ma mën a xam ne ñoom sëñ Fallou dalal na seen xel ndax sëñ Fallou ni mu dalalee seen xel seen doom di génn te mun naa génn ab jour ajuma wala ab jour mercredi bu demee toog fa ba dimanche dimanche boobu da leer ne du dem mees waaye dina ñaan yàlla nag mi ko sàkk dina ñaan Christa bi nga xam ne moom la wóolu tey ak ëllëg léegi kooku noonu kamuy fekk ji nekk kilifa bàyyi ay yitteem bàyyi ay taalibeem ci ginnaaw xoolul alal xoolul âge xoolul diine xoolul dara mu yëkkati ko dox ngir jëmmi sëñ Fallou bi ma ko soppal moo tax kon man mënumaa def dara lu gën a bëgg sëñ fàllu bëgg njaboot sëñ Fallou bi moo tax sëñ Abdou Karim mu ngi noonu rek dañ koy bàyyi yàlla benn jaam amul fayam ku dul suñu borom ak sëñ Fallou ndax li muy def bu bu ma la doon wax fi ma jaar ak moom c'est incroyable parce que maanaam téye bi ma téye te chaque instant rek nit dina ñëw ne ko Mbàkke man tiijaan la day day tourné ne la ne anu François ñu ne mu ngi nii mu ne kaay xool kii kii ab catholique la ñëpp benn lañ rafet xool rek rafet ji ko loolu rek a am solo Sénégal la ñu nekk waa ay proche laa fi am ndaxte xalifa sëñ Fallou tamit naka noonu sëriñ Abo yàlla na fi yàgg te sama xarit la moom tamit ku baax la te li ma gën a marqué moom ci moom ku nekk am na lu ma marqué ci moom sëriñ Abo moomu li ma marqué ci moom keroog bi ma ñëwee nuyu ko ñu waxtaan ba ñu xamante li ma gën a marqué yàlla dafa def benn jour sëñ Mourtala maak moom ñu tase fa mu may présenté sëñ Abo bi ma koy présenté sëñ Abo ne ko xam naa ku baax du fi gëj ci la ma ne man kañ léegi sax yàlla dafa def sax maa ngi bëgg a bëri ay xarit catholique ndax am naa Jean am naa Pierre di expliqué mécanicien bi yooyu yëpp ak François yaa ngi nii toog tamit ñoom ñëpp samay xarit lañ Serigne Bassirou tamit mu sëñ Fallou noonu sëñ du Fatah bi ma su ma sëñ du Fatah tamit li ma gën a marqué ci moom su ma ko jubee di ko nuyu dafa ma naan au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit ma ne ko amen mu reetaan waaw loolu man ba mës a dëkk Touba man kay mun naa wax ne dëgg naa Touba ndaxte comme que dama fiy ñëw def fi ay fan delluwaat fa ma dëkk wala delluwaat dakaar màggal damay ñëw kasu rajab du ma bàyyi dara lépp loo xam ne day jëm ci sëñ bi rek dama koy ñëwal ndindi waa lool du yàgg incha allah xam naa moom waaw bu ñu ko amee tamit dinañ fa dëkk bu soobee suñu borom loolu dina ma neex lool bu kenn boo ñëwee rek ànd ak sa njaboot delluwaat ndaxte fu baax la daal waaw fu baax la waa xéewal ak jàmm ak ja jàmm waa ñaan yàlla gën ñoo suturaal rek man damay jàng étudiant la man maa ngi nekk faculté des lettres et sciences humaines maa ngi sama kii master